ku jox kàddoom mu di cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir ndigal loolu nag cheikh Mouhamadul Bachir fas yéene yëkkati da ci ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ju mag ji ca sëriñ Afiya bu soo jiite ko te ndigal loolu jaar ci jumaa ji jàll ci mboolem yeneen jumaa yi ak jàkk yëpp. waaye ngir bañ a guddal dañuy bàyyee kàddu gi cheikh Mahamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jox kàddoom mu fas ko yéene yëkkati jëmee ko ci mbooleem jullit yëpp ak taalibe yëpp ñu maase déglu Cheikh Mahamadul Bachir bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër Cheikhul Khadim di yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mu nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ñu ñëw fi ci ndigalam nag ginnaaw bu ma wooloo woolu waa daayiratu muqaddamatul xidma ci njiital Serigne Afi Boussa al imam bi ñu agsee itam sëriñ bi yëkkati ay kàddu wax ndigal li nga xam ne bëgg na ko ci joxe na ko ci ndigal yi ci dëkk bi ci jàkka yi ñu war ko saytu war koo taxawu kon li nga xam ne santaane na ko ci ginnaaw bu mu ci joxee ndigal jottali leen ko sëriñ Afi Bousso dana ci ñëw ak ñu ko ci war a àggaleel ngir leeral leen ni nga xam ne la ko sëriñ bi santaane ñuy ñaanal nag bu baax sëriñ bi mu yàgg fii te ànd ak wér ndax li ma ko wax léegi rek li ëpp solo ci li nga xam ne suñ borom defal na ko ko mooy ku gis jëmmam rek mu delloo la ci yàlla suñ boroom ndax farlu ga ci jaamu yàlla ak jël léppam jox ko yàlla suñ boroom te bokkaale wu ci dara waaye jël léppam itam jox ko Serigne Touba laxasaayu doonu taalibe bi ku mel noonu nag kon Serigne dafa fàggul ak njabootam ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal ku fi agsi rek mate ko sëkk moom mii nag yàlla dafa def ku fi mas a jaar rek mu laxasaayu euh, doonub taalibe bi ba laq sa ngërëm ba tey muy Serigne Touba bi mu doonee Serigne ba nageen itam. ku xam na ne lépp loo xam ne mi ngi koy santaane génnut ndigali Sëriñ Tuubaa muy kilifa gu bari yërmaane goo xam ne bu sañoon ñëpp ne ci jàmm bu sañoon fitna du am fenn moo tax itam loolu nga xam ne moom lay dund te di ko yëg ci diggam ak Sëriñ suñu borom faye ko ko ci biir xoli taalibe yi wa min saadati fata xaysu xasat allaa yurdahu fu addu si rasat moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha waxuma taalibe Serigne Touba yi ak njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ku ci jàpp nga ne sedd na la ci sa bopp loo xam ne mosu ko am ci kenn ku jàpp nga ne itam sedd na la ci boppam loo xam ne ko kenn waaye ni ko defee ci taalibe Serigne Touba def ko ci bokk yi noonu la ko def ci mboolem jullit yi le Serigne Touba waxoon ne fépp fu nga gisee ab jullit rek na ngeen ko def muy seenam bokk Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu lay dund kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér ndax yitteem jépp wax naa ko ko léegi ñun ñii kenn ku ci ne yaa ngi jéem a góorlu ci sella sa digg Sëriñ Tuubaa mm-hmm. loo man ci sa digg sa borom nga du ko def waaye moom nag da caa sax te boolewu ci dara boolewu Sëriñ Tuubaa dara amul benn bëgg-bëggu àdduna lenn loo xam ne mën ngaa wax ne Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed ndax bëgg na ko ci àdduna xamu ko du kër du oto du dara mm-hmm. léppam Sëriñ Tuubaa la ko jox. kilifa gu mel noonu bu ko yàlla def war nga saa soo xëyee di xoolaat ci moom te roy ci moom te xam ne lim lay diggal mooy doon la gën ci yow sëriñ Serigne Touba kat bi mu sosee yoonu murit da koo tegal ay sart wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci lépp taalibe war a def mooy bu sëriñ bi digle bul xool la gën a jub ci sam xel ndax boobaa topp gi ngay topp sëriñ bi doo xamante lu muy jëriñ ndax sëriñ bàkk bu soo waxtu wala ma di ko fàttali moo ko waxoon kon moom mii itam nag ndegam moo dox suñu digg Sëriñ Tuubaa lum ñu digal rek dañ ko war a def wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alay fi ma xadaw Sëriñ Tuubaa nee na taalibi balaa ak taalibi mu wir du dingaan mukk ab sëriñam donte waxuma di ngeen ko di ngeen ko ci bit waaye du ko di ngeen ci biir te Cheikh sëriñ bii kan nag ku ne xam na ne lenn loo xam ne ak matadi la wala lu ko nit war a mën a sikke yàlla def ko ci moom kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lu tànd ak wér euh, dëppook aayoo rek wa ma kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim loolu suñ borom santaanoon ci suñ digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mii nag fi mu toog tey moo doon Serigne Touba te Serigne Touba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñuy wax rek dañuy xam ne wa maa yantiqu anil hawa kon nag ñu jox Serigne Afi Bousso mu àggale kàddu yi li nga xam ne war na ko ci wax bismillah mooy ni ngeen ko xamee mooy euh, fii àdduna toll lii nga xam ne ak wér di la te suñ borom wàcc ko ci kaw suuf te moo waxoon ca la Sëriñ Tuubaa waxoon euh, peste ba boo ci njëriñ mbindeefum yàlla suñ borom la mu fi wàcce waxtu ko suñ borom jeexale mu jóge fi waaye kon li ci suñ boroom santaane ci adduna ci lu war a sàmmonte loolu sëriñ bi mu ngi koy fàttali looloo waral sax ngir nag bëgge eh, gàttandu dogalu suñ boroom moo tax sëriñ bi di santaane lii nga xam ne mu ngi koy santaane ci biir loolu itam nag ñu ngi ñaanal bu baax xew-xew bi nga xam ne amoon na fa nii ci jàkke jooju ba ay jàppante am fa ñu ngi masawu njaboot ga ndax ñoom ñëpp taalibe Sëriñ Tuubaa dëkk bi ku fi ñëw ku ne da ngaa gàddaay ngir yaakaar yërmande yàlla yaakaar xetle ko Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku fi sam xel indiwu sam xel indi fi kon nag ñi fi ñëw ñëpp loolu leen fi indi kon nag képp koo xane lu mel noonu dal na la fi te muy doog suñu borom loola ñu ngi koy ñu ngi leen ci ñu ngi koy ànd ñoom tey eh, digal ñi nga xam ne itam ñoo yor loolu ñu gën a sàmmonteeg ak doomu aadama yi sàmmonteeg itam nii ñu ni nit ñi ndax eh, nit dodul bant suñ borom daa wax ne wala xad karam na bani aadama kon boo koy digal loo xam ne njariñam itam bokk na ci xikma ba nga fexe boo waxee ko ko noo xam ne dan la mën a dégg muy ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana ndax loolu rek ko koy indi kon li ci des rek ma bàyyi ak suñu affaire bu so mu sànni ci kàddu bismillah